asalaamaaleykum euh, mbokk internet wasaare news ak Dakar midi euh, ñu ngi fii ci euh, rond point Médine tey mu nekk benn journée ba nga xam ne journée bu bëri tension la ñu kii di Barthélémy Diaz da doon dem muy fële ca tribunal ginnaaw bi ñu waxee affaire bi renvoyé nañ ko gis na ñu ngi noonu policiers yi ñu ngi arrêté lii di convoi bi convoi bi adhéraat na convoi bi mu ngi adhéré policiers yi ñu ngi nekk di wax kii di. combat Ousmane Sonko. voilà. nii di wax ak combat Ousmane Sonko lii combat Sonko la Ousmane Sonko ñëwoon na accompagner kii di Barthélémy ngir dem fële tribunal mais policiers yi fu ñu tourné rek euh, dañ leen di dañ leen di contourné waaw. contourné waat nañ euh, contourné waat nañ euh, élément Ousmane Sonko yi. la police moo fi nekk ak la gendarmerie ak lii di élément dig yi ñoo fi nekk ah, fu euh, Barthélémy Dias Ousmane Sonko tourné rek ah, ñu tourné lii di seen convoi yi tey jii dafa mel ne police dafa jël euh, ay matukaay yu am solo nga xam ne euh, déployé na ko fii si Dakar si artère Dakar yi ah, ñu ngi fii si rond-point Médina quelque lii di stade Iba Mar Diop nekk ay euh, mu nekk journée ba nga xam ne bëri na tension lool lool lool lool lool lool lool. Barthélémy Dias na ñu fàttali leen euh, tuuti ne procès bi renvoyé nañ ko mais lii di ay ñoñam ak ñi mu àndal nee nañ ñoom loolu duñ ko dégg foog ñu dem ba sa tribunal de Dakar euh, ngir mën a xam affaire bi nu mu tëddee. waaw ki Khalifa Sall moom c'est huit c'est huit heures c'est huit heures le départ dem fële sa tribunal de Dakar si. salle bi nga xam ne fa la ñu waroon àttee kii di euh, Barthélémy Diaz policier yaa ngi noonu ak seen euh, ak seen poli ak seen kii nu seen oto yi lépp a ngi fi mu nekk dispositif bu am solo loolu nga xam ne waa police tey déployé nañ ko fii si Dakar. police waaw police yi noonu am na ay éléments police ay éléments gendarmerie ak éléments DIC am na ay euh, civil lañ nekk ci biir nit ñi di xool euh, di veiller au grain mais terewul lii di circulation mu dox normal fii ci euh, rond point Médine circulation baa ngi dox normalement ñuy dem seen yoon ñu ngi dem seen yoon ñuy jaay ñu ngi jaay. mais kii di Barthélémy Dias tey du ma ne tey. dina dina dina yomb pour mu yegg fële ca tribunal day jafe lool day jafe lool pour mu yegg tribunal parce que policiers a ah, ñu ngi ci artère Dakar yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp foo tourné gis fa policier wala gendarmerie wala wala élément digi ah, bu ngi fii ci stade Iba Mar Diop ah, ñu téye fi convoi kii di Barthélémy Diaz Euh, mu am mu am dispositif bu am solo ba nga xam ne police nationale police donc foofu voilà vous êtes en direct sur Wassare News. Alors là, le convoi euh, de Barthélémy Dias est bloqué. Euh... Perdez la réflexion. Perdez la réflexion. combat boobu. du abu abu. mais lii tooñ la quoi lii tooñ la parce que waay. non Mata Lamine ak Sonko ñoo ànd di dox ndànkement. ah gars yi jékki-jékki rek. ñëw tiire leen lacrymogène a ah, nga affaire dañ ko renvoyé ba le premier léegi nag ñoom tooñkat yi ñoom ñu dab gaa yi ah, ah, boy ñoo ñun suñu leader rek lañ bëgg a gis gars yi dañoo doon dox coolement Sonko at Barthélémy ah mais gars yi jékki-jékki rek dóor leen Lakarom Mosel nee duñ dem tribunal xam nga dañ ko renvoyé ba premier mais ñoom ñu ne dañuy dem ñoom ñu dab leen. ñu ne ñoom duñ dem. waaw taxawaay bi nii ñoom ñoo leen ñoo si benn kër na duñ génn. kër gee ngay gis ne étage bi étage bee gars yi nekk ne si kaw. Sonko mu ngi fa doon taxaw léegi di filmer waaw ñun suñu leader lañ bëgg a gis moo tax ñu taxaw fii nee du leneen suñu leader lañ bëgg a gis moo tax ñu taxaw fii kafuñu si réewuñu si pourquoi lii. oui. ok gis ngeen euh, lii di loolu mooy ñooñu Ousmane Sonko waaw euh, fii ci euh, Médina en face stade Iba Mar Diop convoi bu Ousmane Sonko ak kii di Barthélémy Dias leen téye dañ leen mujjee wàcce seen oto yi dugal leen si benn kër à partir de kër googu la Sonko kii di Barthélémy taxaw di filmer lii di convoi bi. du ñu ragal du ñu tapet suñu niree lañ bëgg a gis pourquoi pas ñuy pousse ci ambiance bi ñu du ñu ragal. barki alxuraanu karim nuñ ci bañ ak ñoom bañ ñu ko ci. mais pare ngeen pour def lan tey. donc ñun pare nañ pour jaay suñu bakkan bii déggoo ma de ñun pare nañ pour jaay suñu bakkan bii laa la wax. barki alxuraanu karim ñun pare nañ lépp. parce que lii lan la ko jàppee yéen injustice wala dara. ma ne sëñ bi injustice bi jarutul sax ñu wax mooy géej gi am na ndox mooy géej gi lii yàgg nañ ko gis. yow mënuñu gëm ni dafa doy ba léegi lii dafa doy de. parce que xam lan moo tax ñii tey yàlla may na leen doole bu ñun gungewee mais ñun baadoolo yi bu ñu laalee kan moo ñuy gungee dañu soxla benn justice ba égalité boo xam ne ñun ñëpp a siy yem muy santé bi muy éducation bi ku am ndey ak ku amul ndey bi moo doy te bi Macky na gëm yàlla quoi man la souvent waaw euh, ñu ngi fii ci en face Ibama ñu ngi fii ci en face Ibama Diop ah, moo waroon dem fële ca tribunal Dakar euh, nara naroon euh, honoré lii convocation mais si yoon bi dañ ko convocation convocation bi dañ ko renvoyé ba beneen yoon ba le premier décembre mais moom nanguwul loolu nee na ay ñoñam ak ñi mu àndal ak euh, kii di leader Ousmane Sonko euh, dañuy dem sa tribunal mais policiers yi ak lii di GIGN yi ak waa élément digi bàyyi ñu leen si loolu waaw ay ñoñam nag fees nañ fi dell waaw lii di euh, dispositif bi nag renforcé nañ ko renforcé nañ lii di dispositif bi waaw am nañ benn information de taille kii di Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias mi ngi si kër l'ancien maire de Dakar muy Khalifa Sall nañ leen seen oto wàcc nañ seen oto xam naa nag pour euh, permettre lii di ñooñu Ousmane Sonko yi reculer mais boobu ba léegi luñ fi mooy doonaguñ journaliste yi ñu ngi dàq journaliste yi ñu ngi dàq journaliste yi euh, pour ñu jugee fii mais liñ fi seetlu mooy police mu ngi mu ngi xaw a coopéré mu ngi xaw a coopéré mu nekk euh, ay images nga xam ne wax dëgg yàlla ñun suñu dëkk fii si Sénégal ñu xamee ko woon dëkk teranga dëkk ba nga xam ne pays de la paix nekkul instant yi loolu la ñuy dund fii instant bi nii euh, lii di ñooñu Ousmane Sonko nee nañ il de l'injustice grandissante boo xam ne mi ngi euh, mi ngi judd fii si Sénégal depuis bi fii président de la République kii di Macky Sall nekkee ñu seetlu tamit am na événement yu. li bëgg a liggéey doo mën a liggéey Macky nañu trop vraiment bëgg nañ jóge fii vraiment sonn nañ trop sonn nañ trop. lan nga gisee lan nga gisee police active bi mu nekk di def nii. police te du dañ ne day protéger nation bi mais nation bi gis si boppam tey jii nii ñun nous sommes boo xam ne amul fenn. ndax suñ police bi ñu war a dimbali dimbali wuñu dañuy dàq lu nekk ñu koy def tey jii nii yéen presse da ngeen war a am gis lu xew mais duñ ko doo ko mën a gis ndax dañ leen di fat lii oppression la buñ ko xeexul na kenn ñu ko xeexal. nañ après recul de la xeex laa wax du démocratie démocratie dafa am lu muy lu muy mel lii nag du démocratie lii niruwul dara lii oppression la oppression dañ koy xeex. s'il vous plaît. Ah, ok jërëjëf. man Sénégal la ñu nekk. policiers yi nañu xam ne ñun bu ñu jéngoo day metti te bu boobaa Sénégal mooy perte dañuy jéngu duñu jéngu de parce que Sénégal mooy perte bu boobaa mais nañu xam lu leen war ñun ñu xam lu ñu war dañu jëwoon gunge suñu partisan nee nañu annulé nañu convocation bi nañ ko bàyyi ñu ñibbi lu ñu leen tee nañ ko bàyyi ñu ñibbi ñu ñibbi moo loo di tës j'interpelle j'interpelle xam nga moo ko waral sénégalais yi ñoo dëgguwul tey ku nit yoo xam ne gëmuñu dara seen poche rek la ñu gëm faut dire n'importe lu nekk dinañ ko wax sénégalais lambda bi dañ leen naxa naxa ba xamatuñu fu ñuy taxaw moo waral mi ne moom na dem ba tribunal ñu xam ne wuy si suba kenn du ne dafa daw wala dafa def naka noonu. Euh, ma ñun sept heures du matin ba léegi ñu ngi connecté wu sept heures du matin ñu fekk dégg nañu lépp mais dama Sénégal bu ñu toll tey boo jékki-jékki wala ñu ne annulé nañ ko dem yow mbirum corona fii la ñu dugal deux kii tey bu demuloon mën nañu indi beneen liste buy wane ni annulé wuñu convocation bi monsieur monsieur j'interpelle communauté ñi nga xam ne ñooy suñuy chef religieux gis nga lii nii bu ñu ko seetaanee fi mu jëm genn xamu ko parce que Ousmane Sonko fi mu nekk nii du ñu seetaan mukk ñu koy jëlee di ko yóbbu feneen fu dul këram. Barthélémy Dias fi mu nekk ni du ñu seetaan mukk ñu koy jëlee fii di ko yóbbu feneen fu dul këram. mais lan lan moo tax ngeen leen a jàpp lan moo tax ngeen yaakaar loolu. mais bu fekkoon ne bëgg ñu ñoo jàpp mënoon nañ ñoo bàyyi tranquillement tranquillement ñu def li ñuy def dañ ñu bi mais yow police sénégalaise ak gendarmerie boo waxee une deux trois rek ñu dóor lacrymogène. waaw à fois bu incident amee ñoom ñoo koy suscité yow ñooy les premiers les premiers yi nga donc maa ngi lancé un appel je lance un appel à tous les patriotes je lance un appel à la jeunesse sénégalaise gis ngeen réew mi ñun jeunes ñun ñoo ko moom Macky Sall ñun ñoo ko xeexal teg ko fi keneen ku ñëw ñoo lay xeexal teg ko du ñu bàyyi tubaab bi sax lii ñu Macky Sall bëgg ñëw imposer tubaab bi sax imposer wuñ ko woon donc du ñu xeex ba am suñu indépendance ñëw jël suñu moroomu ndaw la teg ko mu ñu imposé loo xam ne du yoon Ousmane Sonko du ñu seetaan kenn di ko def quoi que ce soit nii Barthélémy Dias dañuy dem élection par force élection yi lañ bëgg a parce que def nañ seen sondage def nañ seen sondage waaw image yooyu noonu mu nekk image yi nga xam ne image yu exceptionnel ak euh, ñooñu Ousmane Sonko ak ñooñu euh, kii di euh, Barthélémy Dias ñëwoon ngir soutenir seen leader yi yii waaw mais policiers yi euh, tey wax dëgg ne yàlla li doon faral di gis tey gisuñu ko si ñoom ñoom tey dañuy jàpp di bàyyi dañuy ñëw di waxtaan amul euh, benn lacrymogène ba nga xam ne sànni nañ ko lii di askan bi. asalaamaaleykum uh, mbokku internetu wasaare news ak Dakar midi tey nag uh, ñu ngi fii ci uh, stade lii di stade Iba Mar Diop bu Medina mu nekk tamit ay images yi nga xam ne image yu doy waar yi nga xam ne ñu ngi koy dund fii waa Medina ñu ngi koy dund muy Barthélémy Dias bi nga xam ne ak Ousmane Sonko waroon dem fële ca tribunal ginnaaw bi ñu ne lii di procès bi dañ ko renvoyé terewul lii di Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko dañoo taxawoon. temm ne dañuy dem sa tribunal pour xam li mbir nu mu fa tëddee mais biñ ñëwee fii si Iba Mar gis ngeen ni Iba Mar Diop dafa fees dell ay nit ay ñooñu Ousmane Sonko ak benn dispositif bu police ah, bu doy waar euh, ñëwoon fii nii euh, Ousmane Sonko nag ak Barthélémy Dias dañ leen wàccee seen oto ñu ngi si benn kër l'ancien maire de Dakar muy xalifa Sall fii ci Médina ñu ngi foofu noonu waaw image yooyu nag euh, tey jii mooy image u Médina image yooyu image u Médina image yu Medina mi ngi noonu tey ay policiers yu bëree bëri bëri ay policiers yu bëri bëri ñoo fi wàcc policiers yu. ay policiers yu bëri bëri gis ngeen. waaw gis ngeen gis ngeen euh, waaw gis ngeen euh, euh. waaw gis nga gis nga ñooñu Ousmane Sonko gis nga ñooñu Ousmane ñu ngi nekk ici en face le stade Amadou Iba Mar Diop parce que ce forfaiture là duñ ko nangu. du ñu nangu ñu jël Ousmane Sonko di ko yóbbu fenn fu dul yóbbu. mais parce que buñ ko bëggaloon yóbbu buñ ñu bàyyi woon tranquillement rek kaw police sénégalaise boo waxee pib rek. ñu dóor lacrymogène lacrymogène ñëpp xam nañ ni boo ko dóoree rek foofu moom jàmm de fa am. donc il faut ñun on a appelé au calme. da da dañoo euh, ñu ngi évacuer société ce que loolu day wane ne tamit ñoom jàmm la ñu bëgg dañu bëgg. bëgguñu jàmm moo tax ñu ñuy repousser nii. waaye du ñu nangu ñu jël Ousmane Sonko. di ko yóbbu wala Barthélémy Dias ça on l'acceptera pas. je lance appel à tous les patriotes qui nous rejoignent ici en face le stade Iba Mar Diop on n'acceptera pas ce forfaiture on n'acceptera pas. ana Bougazelli ana Alioune Sall des gens qui ont volé des milliards dans ce pays où est Bougazelli où Sall. waaw tey Sonko dëkk bi dañ koy taal loolu may wax amul waxtaan dëkk bi dañ bu ñu ko laalee Sonko dëkk bi dañ koy boyal amuñu léegi gis ngeen ni gis ngeen ni gars yi wàcce nañu Ousmane Sonko si mu nekk si benn kër fii nii. non jàmm jàmm mooy mujj jàmm. Ah, jàmm ah. jàmm rek ay mujj. jàmm mooy mujj. jàmm mooy mujj dans ce pays ku laal Sonko yaa taal dëkk Sonko ku laal yaa taal dëkk on n'a pas peur. mais police tey dafa wane beneen xar kanam bu bees wax dëgg ne yàlla police tey wane na beneen xar kanam bu bees euh, tey euh, dañuy ñëw di coopérer di waxtaan ak lii di nit ñi loo xam ne dañu ko woon gis waaw gis ngeen euh, fii ci oh, Médina jege jege loolu lii di stade Amadou Barry gis ngeen policiers yi dañuy ànd ak stade Iba Mar Diop gis ngeen ne dañoo jege. tam Macky Sall dix mille soore waaw dañoo sooy lan nga lan nga jàngatee si waaw am jàngate rek am lu ñu naqari torop nag ndax en tant bi ñuy fal Macky Sall en 2012. en 2019. kenn yaakaarul woon ci moom lii. mais man mii ma yëg ñu yi dafa bi amee problème day taw tamit. day taw dem naa ko tuuti booy gëmul ko bëggul réew mi gëmul réew mi. Macky Sall mu ngi tabax këram état sori. Ah. bu Sénégal bis bu wàcce woon du fi toog xanaa du fi sax toog day dem Amérique bu dëkk ji. te ñun nag suñu réew bëgguñ kenn ku ñu ko yàqal lu ñu bëgg mooy nekk ci liberté totale muy ñëpp. toutes les sénégalais am liberté totale lu ñu bëgg mooy ku defar ñu dëkk ñun ñëpp ay seen lañ liggéey rek moo ñu intéressé mais li ñuy bañ mooy jaay doole jaay doole bi daf bi nga xam ne tey euh, vi utiliser ñu ñii moom dañ leen di remercier ñoom amuñ dara luñ leen wax c'est que ñoom ñëpp suñuy frère lañ jàmm rek moo leen intéresse mu euh, mu ngi commencé ànd ak bi ndax xam na ne nooreel bi dafa doy jaay doole bi dafa doy ñun la paix moo ñu indi amuñu benn droit di yàq mbala ñuy xeex intéresse wuñu li ñu bëgg mooy liberté totale liberté totale la ñu bëgg yéen semis yi sax ngeen am seen liberté totale ñun jeunesse bi ñëpp toutes les sénégalais muy pouvoir muy opposition diplomatie diplomatie police tey diplomatie bi police wane doo ñii moom dañ leen di remercier amuñ dara luñ leen di wax ñoo ngi ñu yokk góorgóorlu rek gën a xam ne jeunesse bi ak ñoom ñëpp benn lañ suñuy papa lañ dégg nga ñu ne ma ay tey da ngeen bàyyi liggéey bàyyi lépp suñu jar na ko Barthélémy jar na ko sax doomu dëkk bi lañu. waaw juddoo fi màgg fi. bëgg leen pour ñu kanam. ñoom pare nañu ko jëmal Sénégal kanam la mooy problème bi. waaye ji na bàyyi na dem yoonam. bàyyi suñu réew bàyyi ko jeunes yi. parce que jeunes espace ci politique bi. dañu may jeunes seen sens ñu dugg liggéey pour Sénégal jëm kanam loolu lañ bëgg Sonko dañoo sonn ci lii tamit gannaaw dañoo maar dañoo sonn ci mais jeunesse bi ah, bu ñëw da même même même même personne yi ñoo ñëw. même personne mooy ñëw kat. même personne yi ñoo ñëw toujours dañu sonal dañu dara kenn xamu fa lañu ñu jugee. tey ñun yàlla ñu boole ñi Sonko du ay wax de mais amul Macky Sall 2019 dafay teg plan. tegu benn plan boo xam ne day jëmal senegal kanam Sonko lu ñu wax dafa ñu doy mu leer ñu xam ne kii fu ñu jëmale ëllëg. fu wóor la fu baax la. te tànk yi mu teg mooy tànk yi baax yi te lu mu bëgg Sénégal mooy lu baax Sénégal yi am ay valeur am ay jikko yu baax am ay culture bu baax si ñoom loolu lañ bëgg ëllëg comprendre nga baax mais soxla ñu Sénégal bu violence soxla ñu ay jeunes yoo xam ne bu ëllëgee dañu am lu ñu jàpp tey jeunes yaa ngi nii amuñu lu ñu liggéey amuñu fu ñu xëy amuñu lu ñu dara mais tamit dañoo sonn ci lii on waaw gis ngeen euh, policiers yi noonu la ñu accompagner ñii di ñooñu Ousmane Sonko yi ak ak euh, ñooñu Barthélémy Dias yi euh, noonu la leen accompagner gis ngeen nank nank lañu ñu leen accompagner ngir éloigner leen lii di cortège Ousmane Sonko tey nag police xaw ma ban stratégie lañ teg stratégie bi moom wax dëgg neex yàlla bi lancé ñu takki moo seen waaw police yi noonu dañoo dàq lii di ñooñu Ousmane Sonko yi ak ñooñu Barthélémy Dias ba si bopp marché leen ñu taxaw foofu noonu. waaw waa ji continué dugguñu dugguñu ci biir policier yaa ngi nii taxaw la police est dans plan plan am la teg euh, pour éloigner juste euh, ñi di public bi ak ñi ñëwoon accompagner Barthélémy Diaz ñu ànd ak moom Barthélémy Diaz nag wàcce nañ ko euh, këram wàcce nañ ko si otoom moo ko Ousmane Sonko dugal leen si benn kër ak Malick Gakou dugal leen si lancé maison. de Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. salaamaaleykum maaleykum lan moo nekk seen taxawaay. ñu ñun de suñu taxawaay mooy lan la maanaam dañuy xeex peuple bi nga xam ne dañ leen opprimé carrément mooy ci lëpp ci doole jaay fitna yi fa demee ne ku nekk day ñëw di xool privilège am bokk du genre Macky Sall. képp ku ànd ak moom loo def loo loo la def loo def neex na ko mais du coup nga nekk opposition bi lépp loo def rek moom gayaan maam da da ciy euh, rek ni maanaam Abdoulaye Wade dañoo yee ci démocratie moom comme li ñu naan mën nañ ne moom mooy le père de la démocratie ici au Sénégal ñun nag xas nañ ba tàmm loolu won nañoo yoon yoon bi du Macky Sall moo ñu koy téye suñ démocratie bopp suñu liberté bopp muy maanaam français ñeneen ñeneen ñi nga xam ne ñoo ñu opprimé dañ koy jël ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu complice comprends surtout nag Barthélemy moom nga xam ne coup bi depuis 2011 ba léegi a présent kenn kenn euh, jugé ko. ñu bàyyi ba léegi comme que dafa soxla maire rek xam ñu bëgg a faagaagal ak ñu fa demee moom. te bàyyi nañ fi ñi nga xam ne comme koo kaa kaa Bougazelli yi ngi nii di a daal suñu économie dëkk xoolal ñaata nit ñoo fi nekk seen machine boobu noonu bu muy defaree foo foo ci ñoom la jugee. port la jaar jaar duwaañ xam ñoom ñoo neen la ñoom ñii di toog fii xam di daane suñu économie dëkk ñu démb réew maa ngi gën a pauvre di dem ak di dem ak dem on est dans les parmi des vingt pays les plus pauvres en Afrique c'est honte ñun Sénégal manqué wu ñu dara xoolal suñu position géographique moo war ñu manqué dara suñu poor ak yi demee noonu lépp ñun yàlla waatoo ñu ñun jàmm ji sax na fi lépp yàlla jox ñu ko ñoom ñi ñu bëgg ñëw téye ñu ko ñun ñu nekk fi nii pour lan ñun yàlla lan la ñu war a wax yàlla ñun bu dee wala wala lan la ñu war a wax suñu doom ñun bu ñu màggee naan suñu doom suñu papa lan la fi def kon ñun dañu ñu xoolal ñoo war a xeex jël suñu démocratie bopp avec leur aide et force bu mooy. force de l'ordre ñoom ñu taxaw fii yéen yéen ñu mën a jàppale ñu jël suñu démocratie bopp ñu war ñu pauvre ñu. Sénégal a teg dafa war a teg da ngeen jàpp euh, ñoo leen di ñoom ba sénégalais ñoo ñu lekk ñoom ñoom ñoom fu ñoom ordre la ñu doxee ñun dañ leen di comprendre du coup mais ñoom ñoom ñoo war a xam maanaam am benn genre observement da xam ne toog xam ni ñuy defee comme niñ ko ni ñu ko defee ni tey moo xeex bee xaar xaayu xaaru xiiw bu ñu doore tam bu ñu dóoree bal tamit ñun ñaa ñuy rey après du coup man mënoon naa doon tey président mais bu ñu ma rayee xam nga fii lay yem ñoom dañu xam ne carrément ñun ñoo lañ fi teg suñu kaaraange lañ fi nekk pas pour kaaraange Macky Sall ak gi fa demee noonu képp ku jege nguur gi xam rek ñu protéger mais les autres xam ak ay baadoo la la gi fa demee noonu loolu fii war a jeex ñëpp la pied d'égalité lañ wax pied d'égalité na fi ñëpp yem suñu droit xam nañ koy kaas jël suñu indépendance su bopp ñun suñu bopp ñu bopp ñun ñuy décider à leur place naa leen lii moo fi xew lii di xam si assemblée bi ñun ñoo war a jox ñoom dañ fa war a nekk ñun suñu wàllum bopp ñee ngi dafa ay passeport ay passeport yu ñàkk fayda xam ne di ko jox ci ñeneen da ngay jël sa am sa gel sa ñoom di ko jox passeport diplomate ba kañ ba kañ dafa war a jeex si dëkk bi ñun dëkk bi dafa dafa war a démocrate dafa war a tegu ci yoon parce que xam nga suñu maam yu baax yaa ngi fi ñaan baax dëkk bi dafa warul ñàkk. kon jàpp nga ni Barthélémy Dias Ousmane Sonko ñooy man man ci man ci la ma jàpp dama am yaqin am am xam naa ne am nañ dignité boobu noonu. Touba nag xaw ma nag mais bu yàlla defee ñoom ñu jàdd ñu ne ñun ñu tam dañu fiy wàccaat sur terrain ak ñu wàccaat sur terrain comme nii nii la fay demee ba ba keroog ilaa yombi di. ñu ngi xeex ñun ànduñu si lii suñu yoon nekku ñun maintenant dañu def ba mu naaj bëgg salaam booy xeex da ngay fi nga dëkk nga xeexee foofu mais bu leen ñëw ba maintenant bëgg saltel suñu koñ di fi xeexee di saltel fii dañ dem fu ñu dëkk ñoom xeexee foofu wasalaam suñu yoon nekku si genn xeex genn xeex xaa la fa laa jëm sax na foog na fa laa jëm fa laa jëm fa laa busal xeex ji leen day fi ngeen dëkk dëkkoo leen day fii. seen si maintenant dañ ko def ba mu naaj bu leen ñu koy yàqal maire mi nag dafa liggéey fi ba mu rafet soxla ñu ko ñu koy yàqal bu leen ñu yàqal day sunu suñu commune. boo nekkee ngeen na ngeen dëkk ku fi yëngal ñu ubbi téléphone ndey fi. Bamba dama liggéey métti am na mais mais mais mais Bamba mais Bamba Fall moom nekkul moom euh, si euh, parti au pouvoir opposant la. opposant la opposant la jusqu'à présent. mais ñi ah. ñi opposant lañ. waaw ah? lu mu gëm. ak ñoom li ñu gëm du benn Bamba dafa flag fight la am kenn du ko yàqal Medina Medina la gëm Medina la suba waaw Medina lay jàmm waaw ñoom nag ñoom nañ génn nday commune Bamba jàmm la woote Bamba jàmm la woote lan lay daw li andi ay nit na dem wuyu moom kese bu indi coow ñun taluñu ay coow waa Dakar dañ sonn ci coow yi taluñu ay coow yow yaa woote appel bu indi ay nit yow kese dama nga wuyu ci jàmm salaam après nga dem ñibbi et le problème ah. bi li waa wax dëgg la nga c'est-à-dire réew mu nekk dañu war a woote jàmm moi je crois que nous sommes en démocratie la démocratie aussi a des a des exigences moi je crois que comme par exemple léegi lii yoon la affaire justice la Barthélemy on l'a convoqué mais na dem wuy moom donc ba xam lan lañ koy wax. Sénégalais dañoo jàpp ne convocation bi acharnement politique rek mais est-ce que léegi yow Barthélemy convoqué woon ko avant élection di jot yooyu. ñoom dañoo ne dañoo ne dañoo ne ñoom xamoon nañu avant le 10 novembre Barthélémy Dias dina bokk ñii nga xam ne ñoo war a jël ville de Dakar. non loolu kenn xamu ko parce que c'était pas sûr même coalition bi mu bokk sax xamuñu ko au dernier moment la xam ne euh, Barthélémy Dias war na nekk candidat donc je crois que aujourd'hui tey suñu demee tey ba ay coow am ñun suñu commune jàmmari lañ bëgg nañ ñu may jàmm et puis xam nga dugg ci biir marché ni comme ça policier taxaw armé ni war dóoru ay grenade loolu aussi dañu war a sàmm loolu parce que bu ñu feneen ñun d'accord nañu kenn ku nekk sañ ñaxtu seet kenn ku nekk sañ def loolu neex mais ñu def ko exprès ñu dugg ci biir marché bi ñu sànni fi grenade marché bi tàkk ak nga xam ne moo fi nekk ay milliards nekk fi war a yàqu loolu la bañ ñun en ñun li ñu fas yéene def mooy taxaw aar suñu alal la ñu fas yéene mais li ci des nag suñu yoon nekku ci ñoom bu yeboo Barthélemy mars ginnaaw suba bu yeboo opposition mars ginnaaw suba mais mais kii économique nañ ko moytu parce que Auchan yi li ñu leen defoon moo ñu yee ba nga xamante ni bëggatuñu lu mel noonu di amaat fii donc loolu rek la ñun waxuñu ko pour contre Barthélemy waxuñu ko pour contre Sonko waxuñu ko pour contre kenn man maay délégué marché bi mais maa ngi tudd góor gi Diop maay délégué aar lañu marché bi parce doom lañ suñu jarbaat lañu kon waruñu dugg si biir marché bi nii ànd ak un attroupement comme ça ñu sànni fi ay grenade marché bi tàkk ko war a sàmm. Ah, euh, Ndeye Khady madame Seck Khady Diémé madame li waral sama teewaay mooy damay citoyen sénégalaise kon defe naa ne lépp loo xamante ni lu ñor li nga xamante ni ñor nañu si suñu Sénégal gii injustice bi fi nekk mu nekk loo xamante ni gënaluñu neexuñu kon defe naa ne bu ñu woowee suñu mbokk di suñu mbokk sénégalais kon defe naa ne war nañoo yitteel ñun ñëpp ay sénégalais te gis nañ li fi nekk ci réew mi neexuñu gënaluñu wax dëgg yàlla nekkul loo xamante ni lu ñu bëgg kon bu nekkee lu ñu bëggul nag bu ñu wootee war nañoo ñëw def suñu teewaay dooleel leen ci li nga xamante ni injustice bi fi nekk ñu ñuy yëgal président Macky Sall ne ñun Sénégal benn nit dong moomu ko ñun ñëpp ko moom te kenn ku ci ne da cee am wàllam na jël lu mu moom bàyyee ñu lu ñu moom. waaw bu ñu ko bàyyeewul nag danañ nangu lu ñu moom danañ ko foqati ci ay loxoom jël ko kon ñun ñëpp ay sénégalais ñuy comme sénégalais yëpp am nañ ci wàll kenn ku ne da cee am wàllam kon war nañoo jël suñu wàll nañu bàyyi. waaw loolu la la moo xew en ce moment. voilà Gakou Sonko ak Barthélémy Dias police ñoo leen contré woon ñu dugg ci benn kër. aux yeux tout le monde la presse était témoin ci magasin lañ leen dugaloon maintenant nag maintenant nag ce qui yàlla li xew mooy que ne police dañ leen fekk foofu ne jël leen par de force dugal ci benn oto boo xam kenn xamul genre oto la. fi parce que police dañ ñoo daxee woon ba fële gàkku moo ne ma police ñoo leen expliqué foofu noonu jël leen par de force dugal ci benn oto boo xam kenn xamul nag fu ñu di jëmee donc kon ñu ngi gisee Barthélémy Dias oto baa ngi nii mais dafa mel ni Barthélémy Dias dafa mel ni Barthélémy Dias nekkul si oto bi dafa mel ni Barthélémy Dias nekkul si oto bi waaye comme ñu ba léegi Barthélémy xam tool yi euh, kii di Barthélémy ak kii di Sonko. ñoom ñëpp ñoo si oto kii di Khalifa Sall waaye comme ni ngay gisee mbooloo mi ba léegi na ñoo waaye dafa mel ni ah, oto bi oto Barthélémy Dias moom ah, kenn nekk fa waa ñu ngi gis partisans yi ba léegi ñoo ngi topp kii di oto oto bii di oto ah, Khalifa Sall Khalifa Sall nag moo nekk si biir moom ak Barthélémy Dias ba léegi nii xamul fi ñu jëm est-ce que lay seen kër wala est-ce que lay dem comme ni ñu waxee woon lay tribunal par force mais ba léegi policiers yi may ñu leen ko ah ñoo ngi leen ñoo ngi topp ba léegi dañuy gis yi di yuuxu sonko sonko oto police ba léegi xaar rek gën a jege xam lu gën a xew foofu. yaa ngi dégg mbooloo maa ngi yuuxu. Macky Sall ba oto bi bu mu toll nii comme nu koy xawoon sànq kii di Barthélémy Dias ak kii si oto Khalifa gars yi si biir oto police kii di Ousmane Sonko ak kii di Barthélémy Diaz ñoom ñoo ngi si biir oto bi mbooloo ma nga leen topp mbooloo mi ñoo ngi leen topp di yuuxu kii di Ousmane Sonko waaye tamit di jël ay kàddu yoo xam ne kàddu ñagas la di ko jëmale kii si président de la république ñoo ngi fexe tout ba xool mbooloo mi ñoo ngi doon demaat. yaa ngi xool. amu waaw ñoo ngi ñu gis. xurum xaar. lan la ñuy kon xaar situation yi nu mu demee fu mu toll nii. waaw li mu demee mooy dañu ne ku wéy ñu dem seen waaw procès Ndiaga Diouf dañ ko renvoyé neen ba le premier mais procès amatul. Ndiaga Diouf moo perte. waaw na ko yàlla yërëm nag mais moo perte. léegi ñoom dañu bëgg naan dañu bëggoon téye Sonko ak Barthélemy ci ah. trouble à l'ordre public. Ah. te ñun ñu ngi fi. Ah. comme Macky Sall la. justice bi dañoo topp Macky Sall. réew bi bopp bi ñoo koy gouverner léegi. ñu koy gouverner mooy ñaar ñii la leen bëggoon la leen bëggoon toppee bu aar du public da ngeen xul xaar wax nee na ni ko si Sall mu koy dicté fi Macky moomul dëkk bi moomul dëkk bi loxo ci ñu a takk ci nguuru Macky Sall a takk gis nga affaire mu ngi compte bloqué Pawmaas xoolal journaliste yi sa paawu ñaan ñu def seen liggéey xoolal xoolal amul amul amul amul négocier de amul fair play de Macky Sall daf ñu yabal de barke yàlla daf ñu yabal. naqari tey li ma naqari moo naqari Sénégalais yëpp moo naqari Sénégalais yëpp ndax ñun yàgg nañoo artu Macky Sall xam nañ toujours lim nar bu naree taal dëkk bi Macky Sall bu naree taal dëkk bi day génn daw dem day daw dem bi muy dem bi muy woo Barthélémy Dias pare wutoon pour dem projet moo tax mu jël vol daw nan ma nga Cap ma nga waaye dama ko xamal ne Ousmane Sonko tëdd ci kaso bi ma faatu man ñu faatu ñu yëpp ma mbàqee sëñ Mountakha Mbacké ñaanal ma moo ñu gënal Ousmane Sonko tëdd ci kaso bi Macky Sall Macky Sall Macky boo xamul Ousmane Sonko ñun xam nañu Ousmane Sonko ah yow xamoo Ousmane Sonko ba léegi xamoo ko wax na waay guddi wax la bëccëg ne du ma ñi nga daan tëj nee na la du ma ñi nga daan tëj Sonko Barthélémy Dias musta ragal te du ragal Ousmane Sonko at mi mu judd ragal juddu wu ci dafa war a leer askanu Sénégal peuple bi dañoo am ci moom yaakaar yaakaar ji ñu am ci moom nag mu teg bakkanam dañuy teg suñu bakkan Macky Sall yow boo boo jàppale Ousmane Sonko tey doo wàcc Sénégal aéroport doo fi wàcc dafa war a leer nañ doo fi wàcc. te Macky Sall doo yegg 2024 te xamal naa leen élection ci Dakar élection Dakar a am. waaw Abdoulaye Diouf Sarr bu yaakaaree Birame bàyyi ko mu bëre. waaw bàyyi ba bàyyi Barthélémy bëre bëre bi da nga bëre yaa ko bi yaa koy naan. yaa ko somb yaa koy naan sëñ Mountakha Mbacké wax naa yow ci màggal Tuubaa jàmm laa bëgg élection la jaar ci yoon waaye yow doo dégg wax kenn Macron rek ngay déglu a Macron ñun moomuñu te duñu moom tey duñu moom suba Ousmane Sonko nag dama la waxoon ne Ousmane Sonko dama ku ko tëj ku ko tëj sa jabar tënj la war a leer Ousmane Sonko ku ko tëj yaa xam ngay procureur yaa xam ngay magistrat ku ko tëj laa la wax sa jabar dina la tënj bàyyi leen seen xel yàlla sàkkul kenn ku mu war a rey ak ku mu war a tëj Macky moomoo Sénégal ñoo la ko dencoon wala Abdoulaye Wade defoon nii wala Abdoulaye Wade defoon nii Macky Sall doo doon président Sénégal. Sonko suñu président Macky Sall suñu bu la Abdoulaye Wade defoon nii doo jot ci réew mi yow Macky Sall kilifa di léegi nag ñu ngi lay bàyyi xel te yow xamoon ne ñu ngi lay bàyyi xel waaye Macron mi lay digal yaa ngi Macron yëpp danañ leen wan ne la Ousmane Sonko du ku ñuy laal Barthélémy du ku laal Massa Ambe sonn nañ dëkk bi dëgër na demal lijjanti gone yaa ngi daw gone yaa ngi daw di dugg ci gaal yi gone yaa ngi daw di dugg ci kasa kasa kasa yëpp fees dell kasa yëpp ngi fees ak ay jeunes nga war a lijjanti loolu lijjanti yoo ko di jàpp jàpp Ousmane Sonko duñ may tey duñ la may suba duñ la may ginnaaw suba billaahi wallaahi tallaahi danañu rayante yow danañu rayante yow ba mel ni badar ba mel ni xare badar xare badar nam tànge woon dana ko tànge booba nga wut ay corbillard booba nga indi ay booy ba nga indi ay lu la neex dañuy ñibbi. oto oto boo xam ne fa la nekk ak kii di Ousmane Sonko euh, mont bi taxaw na policiers euh, kenn feebaru kenn cancer kenn diabète kenn amu fi estomac kon nag bu do ay ay estomac yooyu de du fi am de ñun dañoo doyal dañoo doyal. doy si kan. dañoo doyal ci ma Macky Sall doyal nañu abal fii ay zone si ndaw ñoo fi nekk koo ci dompat meew di génn sa yaram fii pa nekku fi maire nekku fi kenn nekku fi kenn feebar fi nañu bàyyi xale yi ñu xale yu ndaw yaa ngi Poutinière yi euh, sànni lii de la yi ñoo ngi fi taxaw si point baax de la boulevard Gueule Tapée si rond point bi chef yenn information yi wax nee nañ kii di Barthélémy Diaz ak kii di Sonko gannaaw bañ nekkoon si oto bi nee nañ yóbbu nañ leen ba léegi xaw fi yëg ñu déglu kii di xuru xaax nañ fi parce que justice amul fi pas suñu taxawaay mooy Macky Macky Sall na libéré sénégalais yi senegale yi tonku nañu son nañu dee nañu xiif nañu mar nañu ñun dañ ko defoon ne gor la bañ ne deuxième tour ku jàll moom la ñuy àndal Khalifa dafa ne àndalee nag Macky ñun ñëpp ñu teral ko bañ ko teralee ba muy paree ñun la ñëkk a toroxal tourné nag boobu ba tey Barthélemy xale la day dem mënu koo teree dem barke Serigne Babacar barke ba muy liggéey si parti bi moom xamul lu mu doon dafa doy on a marre dañu bëgg jàmm ak salaam sunum réew. bu bu maanaam jeexee day dem keneen ñëw moom moomul réew mi moomul réew mi jeunes ñoo ko war a defal waaye du moom na dem daal ñun doyoon nañ si moom sëkk. <laughs> surtout maa as noo gisee tey tey surtout sa situation waxoon naa ko bu yàgg ba tamit jaaj bu mu taxee cour cassation. bi muy jàppale Khalifa Sall moo ko defoo dara nit danay am fit am jom parce que nit ki munoo di doxantu pour sole moom ni man du ma doxantu pour sole situation bi ñi jaayu ñaka juuf moo rey ñaka juuf waa PDS dañ ko genn ba bay jël pusale bi sànni ko géej di suuba jub du Barthélémy Dias fekkoon Barthélémy Dias jour bi ñu koy yóbbu Tamba oto bi du kopp deful dara maanaam état état la Macky Sall waa PDS man bokkoon naa si xeex bu ñu xeexoon Abdoulaye Wade jóge fi mais du du Abdoulaye Wade moo tax ma xeex bi maanaam nun ko doon def si jamono yooyu maanaam góor gi jeex na suul nañ ko dee nañ ko ma génn moo Macky Sall tuy sera quatrième président du Sénégal bii monument bi moon nii ba léegi kenn jàppalu ma benn bokk yaakaar dem si bokkoon ñëpp bokkoon si Macky Sall tekkil ngox la moomoon deuxième tour nu jox bokk yaakaar warkat la état la te Macky waa PDS Oumar Sarr waa PDS Idrissa Seck waa PDS loola nii xeex Barthélémy Dias il a rien fait mais su boppam mun na génn àdduna maanaam il risque la mort. man kan kan moo nar a génn àdduna. su jugul su boppam il Sonko maa ko jàppale ba mu génn te kenn seetuma ba léegi mooy le 8 mars lu xewoon fii affaire coow Adji Sarr génn na su jàmm asalaam ay glace laa doon toj ay nen ay soow moom ay chef rap Barthélémy Dias na génnee ay meew ay glace ay soow ay caakiñ soow ay tàngal ay xuus ay yëre weex di koy jox jigéen léegi nag damay ñëw si coalition yi gagné non damay ñëw coalition yi gagné onze coalition gagnant laa yore deux mille dix-neuf laa ko taxawal benn bokk yaakaar dootul gagné élection benn bokk yaakaar dem na vendredi échoué Cheikh Tidiane Gadio mooy jiite benn bokk yaakaa moo awa ñaa mais pas Macky Sall benn bokk yaakaar sixième lay jël si élection bi Ousmane Sonko huitième j'ai quarante deux ans quatre plus deux égale six sixième lay jël chocolat mooy kay mooy mooy jël sixième premier Aminata Mbengue Ndiaye la jaune mooy gagné man damay liggéey si couleur jaune mooy gagné rose bi. Aziz Tall Sall la troisième bi Aminata Tall la quatrième bi Yaa Fatou Diagne cinquième bi Mimi Touré sixième Benno Bokk Yaakaar septième Amsatou Sow Sidibé huitième Ousmane Sonko neuvième Taxawu Sénégal Khalifa Sall la dixième Abdoulaye Wade un plus diligéré bi un yee am un bi Abdoulaye Wade la onzième benn sigil Sénégal la Moustapha Niass parce que tous les coalitions laa Aminata Mbengue Ndiaye coalition moo lu tudd coalition Sunuy pour servir nouvelle vision du Sénégal Aïssata Tall coalition Réussir sans frontières euh, Aminata coalition Sénégal en marche euh, Yafa Tidiane coalition pour un Sénégal gagnant Mimi Touré écologiste nouvelle convergence républicaine Benno Bokk Yaakaar Cheikh Tidiane Gadio la septième la carte du jeu coalition alternative pour un Sénégal émergent huitième frappe pour le développement du Sénégal du Yewwi Askan neuvième taxawu senegal la dixième wàllu senegal Pape Diop Souleymane Ndeye Ndiaye Oumar Sarr onzième benn sigil Sénégal Moustapha Niass mais du Moustapha Niass Malick Gakou docteur Malick Diop ab ministère boobu nanu bàyyi di caaxaan di bàyyi di sàcc on a du pétrole on a du gaz les Aminata Mbengue mooy jël B deuxième Assata Sall ak troisième Aminata Tall man maa découvrir pétrole bi ak gaz ba génnee salax bi. yow léegi kan mooy gagné si élection yi nii entre Sonko ak kii di président Macky local yi am na nag Mène mooy jël paie élection président c' est Astar na démissionné tey lii moom moo waloon doloon lii parce que li nga mun na ko dal mooy trafic passeport diplomatique ma dindi ko jokk benn bokk yaakaar nag démissionné la waa PS démissionné am na tey Mène Ndiaye nag bokk yaakaar ma jokk coalition jokk parti yom parti yom moo lu tudd parti de la diaspora am à cette salle dama jël sama parti maam jokk ko mii paix parti africaine indépendance maam Cheikh Assa ma yokk si société civile 2019 dama taxaw di créer coalition di créer parti mais utuma si xaal ñoom laa koy jox ni mu tukkee coalition moo lu tudd plus parti liberté unité euh, pluriel liberté unité solidarité yaa faatu yaan parti yoo moo lu tudd pat parti parti avenir citoyen technocrate Thank you.